hommage mérité à son Excellence le Président Abdoulaye Wade d'avoir permis aux Sénégalais d'accéder aux grilles du euh, aux grilles de euh, l'Assemblée nationale barricade bi am fii tey amoon fi bu ñuy def parrainage bu Abdoulaye Wade defoon noonu kon tey nit ñi duñu si ba bay feete anniversaire bi mais monsieur le ministre yéen nag yéen a yóbbu fiti nit yow nag yaa nar toj Sénégal yow xam nga lu tax ne bëret ne terrorisme nit ñi bu ñu xamul terrorisme ci Sénégal vivre ñu ko itam ñu ngi koy gis ci Mali la xew la la fa xew moi je de la CEDEAO le Mali a été retiré de l' espace CEDEAO ndax seen terrorisme bi ñuy def seen terrorisme bi ñuy def xale yi sax xam nañ lañ mooy loo xam xam nañ sax lan mooy la boo nee bëreet wax loolu kañ yow kañ bu nit ñi nelawul lekkuñu naanuñu dolli ci xiif bi ñu yoroon yow mii la sàll nga baal maak monsieur le ministre damaa wax ni fii amu fi li ngeen nar xam nañu ko. bàyyi leen mbër gi falang daanu na ba falang daanu la kenn mënta nax kenn Senghor a daan wax ne réew mi golo xaj la woon bu golo yéegee xaj toog ci suuf léegi nag golo golo la boo yéegee mu yéeg fekk la ca kaw nga wàcc mu wàcc li ngeen nar xam nañ ko coloniser nit ñi kenn du mitin kenn du wax kenn du def dara responsabilité bu ca am ñu ne kooka la def ko à perpétuer ngir yàlla monsieur le ministre est-ce que yow am nga xol buy daw est que yow sax sa sa di dina yëngu est-ce que monsieur le ministre vous êtes Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des sentiments, sentiments parentaux envers nos enfants mais mosul am dans monde là képp kuy jigéen ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba xaw laa rey nga war sa doom ba muy magum jëmm pour des histoires personnelles politiques ñu jàpp suñu doom yi di coup de pied di dóor wóor na sëñ Fall dama doon jooy les bras les gros bras léegi yow nga ne ministre de la justice gerte doo ci wax doo wax ci loolu loolu moo jar a wax képp kuy Abdou Diouf ñëw Abdoulaye Wade dikk Macky day wàcc par A ou B seul le pouvoir de Dieu est éternel fii ku fi yor yàlla la ko jox mais soo ko yoree nga rafetal ko nag ba bu ëllëgee boo wane gannaaw nit ñi mën laa topp Abdoulaye Wade bu wàccoon fii tey ñëpp koy topp ndax dañ ko doon xas waaye xam nañu il est le meilleur président de la République du Sénégal monsieur le ministre ma di la ci le président Macky Sall garde rouge yaa ngi ko wër généraux yaa ngi ko wër décret yaa ngi ko nee na yëpp ci boppam ne bis dana ñëw ñooñu danañ ko bàyyi dem wëri moromam ndax fii loo fi gis ci àddina able la yàlla da koy da koo able leen bu leen neex wax leen bu neex état moo mel noonu c'est notre frère c'est notre frère paternel on a fait vingt ans avec lui fit wi mu yor yéen ñi yéen a ko ko may am koon xam nañ bu baax ki yéen Macky Sall ah ngeen foog ne rek loolu dëgg la wax ji wax ji fexe ngeen woon ba ne cinq candidats rek la ñu am bun Abdallah Dione na ko wax fii ma ne ko yow foo dëkk foo yaroo foo bokk effectivement c'était vrai yow itam yaa ngi nii lii ngay yoot xam nañu ko kenn du mars kenn du bëre kenn du xeex kenn def waaw on est dans quel monde on est dans quel ci man réew la ne démocratie bi fi Abdoulaye Wade instauré woon yàq ngeen lépp te du tee bu ngeen waree dem da ngeen di dem yàlla moo yor nguur bu demee commencé à telle année et terminé à telle année kenn amul date bi yàlla moo yor nguur te li ngeen war a waxu leen ci moi je suis de la CEDEAO on a parlé du parrainage lu tax waxuloo ci le cas Karim Wade lu tax waxuloo ci le cas Khalifa Sall lu tax waxuloo yéen daal yow yaay Serigne Sopp daganal Serigne Sopp daganal li nga bëgg a gis ngay gis li nga bëgg a xam ngay xam li nga bëgg a rafetal ngay rafetal mais yow bu dee dossier am nga loo loo def gis nga lii lii ngay wax nii xam nga li ko gën nit ñi dañoo xiif ngeen jox leen lu lekk lekk ba suur sa lekk ba suur sa baay yaa ngi wut loo liggéey ku woote téeméeri manifestation yi ci mbedd yi duñ la ci fekk c'est ça la vérité vous êtes là pour gouverner le Sénégal vous êtes là pour secourir les Sénégalais vous êtes là pour aider les Sénégalais yaakaar gi fii la ndax yéen la yàlla jox réew mi dañ ne ñun dañoo tële ba dàq ñu ñu dem d'accord nanu waaye yéen ñi man bañ jox leen lu ngeen nu andil diggée bu dul jeex rek lu ngeen diggée yéen daal Macky daal président dajjil ma bi paquet bi nga daj woon daal naa jeex loolu mooy c'est sûr xam ku fi amati doom maa koy tudd mbaa boo ko tuddul terrorisme la loolu nag du am ci Sénégal man ta ne dañoo trop. Sénégal je vous remercie ma dagg bul ma dagg. je vous remercie les cinq minutes sont finies. matal ma les cinq minutes sont finies. les cinq minutes sont finies. je donne la parole à notre collègue. monsieur le président ñoo ngi lay gërëm di la sant si liñ la gërëmee mooy liñ la fal man nga ko képp ku dëkk ci réew mi moo xam muy député mooy xam ku munti doon war nañ laa gërëm ndax am nga yar am nga teggiin am nga dal yow opposition ak pouvoir yëpp nga yemale ak minoritaire ñëpp ñoom nga yemale képp ku nekk droit bu am nga jox ko ko ba mat sëkk loolu moo tax assemblée bu dajee ak lu mu bari bari bëri coow dal rek lay def ba li ñuy def ñu def ko ba pare kon war nañ la cee sant kilifa buy def lu baax war nañ koo sant di sant yi tamit euh, ministre de la yow ak lu munti doon député bu ne bu amul yar amut teggin defe naa kooku mooy terroriste député bu ne boo xam ne doo wax dëgg terroriste nga député bu ne boo xam ne amoo yar amoo teggin terroriste nga parce que cëru cëru député cëru député xam nga député toog kilifa toog nga di ko joxoñ di ko jox joxar bi doo joxoñ ay baaraam député bu am yar doo ko def dégg nga xam nga ne kooku du yar du teggin ñaaw làmmiñ ba pare te man xam naa ne bu ñëpp mel ni man yëf yi dana jeex ndax te dama ne minoritaire lañ wax ak majoritaire ma ne politicien bu ne ay nit nga am moom ngay bàkkoo dem assemblée. man nag doo am ñetti nit ma am ñaar fukki nit ngay wax lu la neex di jël saay damay jëlee fekk la fa nangam taal la ba nga jógee fa man noonu lay def parce que bu ñu nguur gi attewut ñoom ñu atte suñu bopp wax moo fi nekk di wax dégg nga di wax amoo yar amoo teggi parce que boo amoon yar dem toog fële déglu ma ba ma pare parce que da ngaa wax man laay déglu amuloo yar am moo da ngeen teg da ngeen yàgg a daanu parce que da ngeen falu woon ñoom dañoo falu woon daanuwaat ñun bu ñuy jël xalaat duñ ko jël ci yéen parce que ku falu ba daanu la muy wax jarut tontu. parce que xam ngeen ni nguur di saf Macky Sall nag yàlla mooy atte mooy fay ba mu nekkee directeur campagne 2007 gagné présidentielle gagné euh, législative ñu xëy ne dañ koy génnee mu lànk ne du démissionné xeex ak yéen parce que borom fit la am na jom ñu dem ba xam ne yegg nañ ca ñun dañ ko daan ñaan ne ko Macky bul bàyyi député gi parce que boo ko bàyyee Ablaye Wade dalay tëj mu nëbbuñu toog ba alxames ba mu jël waxam. mu jël bàyyi yëpp bàyyi weeram bàyyi passeport am bàyyi ay otoom bàyyi lépp seeteeg yàlla